c'est pas comme ça. c'est dommage. waaw c'est dommage tu es obligé parfois nga saliñu cest à kii ñëw ànd na dama lay ànd ak yow wala lay votal tu es de l'accepter même s'il est comptable de la gestion du pouvoir. ñi doon saagante démb. mais moom laa la wax. malheureusement mënoo ci dara. Diomaye mooy Karim Karim mooy Diomaye. mais loolu loolu mooy. mais Omar loolu la Sénégalais yi bëgg mu daj. waaw mais d'accord loolu laa la wax. voilà moo tax il ñu dem ba ba ba toll foofu que kii jiite ñi ànd bokk bu ñu xasee ba gañ a jiite après ñu jugé leen ñoom ñeneen aussi bu ñu ñëwee mu doon noonu loolu day tax doo am otage dans ta dans ta coalition. effectivement xam nga tey mën na am otage. ñëw ne la ah yow li ñuy waxoon du lii lañ sañoon ñëwoon du lii lañ waxante woon mais bu fekkee ne yow ak sa équipe yéen ànd dem élection gagné bu ëllëgee kenn du la jël en otage. déedéet. mais il faut aussi ñu déglu le le premier conseil le conseil des ministres c'est-à-dire li ngeen fi wax yëpp il le dit maintenant secret c'est quoi c'est la faisabilité mm. mooy la nga wax dana mën a la nga wax mm. ñu de ko xam nga on est là conseil des ministres dégg nga ko les cinq axes effectivement dégg ngeen président li mu wax mi ngi nii mm-hmm. jàpp jàppoon naa ko fi ils ont parlé de quoi ils ont parlé de transformation systémique systémique donc ñoom ils sont à tout transformer à tout revoir wax cinq axes tout les cinq axes mm-hmm. duma ma bëgg bëgguma mu gudd wax nañ ko ci seen mm-hmm. ci conseil des ministres mais léegi yooyu ñu wax nag moom la ñuy téye nii di ko topp foofu lañ leen di xaar saa dañ koy topp ñu ne ah yow lii nga waxoon gisuñu ko lii lañ waxoon gisuñu ko lii lañ waxoon gisuñu ko foofu foofu foofu lañ leen di xaare ils ont parlé de la jeunesse ils ont la formation de l'éducation de réduction des comptes tout wax nañ ko mhm. ils ont parlé du capital humain on en a besoin parce que aujourd'hui il n'est plus question que ñuy accepter des gens qui étaient dans des avec des responsabilités nekk en retraite que ñuy def ay contrats spéciaux or il y a des jeunes qui sont là yu génn comme ñoom ci les grandes écoles te ba léegi ils n'ont pas d'emploi mhm. ça c'est des choses à revoir tous ces retraités ki ont des responsabilités dañ leen war a jëlee ne leen kaa leen noppalu ko toog ñu leen soxlawee nag mën nañ ñëw laaj leen conseil ñu wax ñu buñ leen jox nampaay sax ñu jox leen ko mais donner les responsabilités à ces jeunes qui sont là qui des grandes écoles comme vous li ngeen di ëppalee mooy expérience alors que l' expérience ça s'acquiert bien pas inné bien sûr donc foofu la ñuy xaar nos nouveaux gouvernants à ce que ñu ñu def ko reddition des comptes yi à la dinañ ko def su lu nekk ñu xam fi ko dugal ak niñ ci def mais il faut ngeen xam ne ñii fi toog nii dafa am ñu fi newoon te ña fa nekkoon ba léegi am na benn force boo xamante ne mi ngi ñoom te boo defoon ndànk mën nañ la désorienté nga dem vers des combats et laisser tes priorités. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. man déglu xam nga tey je prends un certain exemple on a parlé de AIBD ñu wax recrutement recrutement c'est minime par rapport à ce qui se passe à AIBD quel est l'objectif visé en parlant uniquement de recrutement alors qu'on parle de gestion on parle de gestion donc tey mën nga taxaw ci dans des secteurs ñu dugal ñu yóbbu ci combat moom c'est pas ça le combat mm. le combat est beaucoup plus profond que ça boo nekkee nag état boo xamante ni da fragile immédiatement ñu désorienté la nga nekk dans une dynamique de combat. Mm-hmm. da ngay combat ak ñooñu population yi doon la xaar gisuñu la si lay xaar ñu ànd ñoom seen colère ak ñële ànd na xeex la immédiatement nga jóge si réew mi. moo tax il faut que ñoom ñu xam seen i priorité xam ku nekk la nga war a def ñu defandoo ko mais tey le ministre a parlé dama lay wax nag benn affaire nañ ko wax te dee. Mm. nguur dina ñëw mm. uh-huh. mais Sénégal mënoo fi ci bu ñaar ñoo xamante ni nga génn si Moustapha Ba ministre des finances. ministre des finances mënul ne. Bousquier. ci ñuy aay fii si réew mi. ci am ci finance publique ci finance fii. mën na gëmm di la ko wax. te loolu je pense que sénégalais en grande majorité mën nañ ko xam la gestion nag c'est autre chose parce que finance dafa am ñu ko moom. Mm-hmm. dafa am ñu ko jàng comme ni ñuy jàngee fiscalité jàng impôt ñoom Sonko yi si lañ génne ñeneen ak ñeneen si lañ génne ñooñu ñooy administration. Mm-hmm. boo fa jëmee indi ñoo xamante ne xamuñu ko doo fa def dara tu ne peux pas avoir meilleur aujourd'hui que ba au niveau des finances bi président choisir maintenant bul xool ne kii da liggéey ak nguur bi te loolu mooy ce qui est dangereux dans notre pays dañuy oublier l'homme politique qui a des responsabilités et le fonctionnaire le fonctionnaire est obligé d'être loyal vis-à-vis du politique à quel soit celui qui sera là mm-hmm. kooku dama bëgg ñu di ko sóor. oui l' administration est là yow yaa kay yow yaay dem bàyyi leen fi mais ñoom mënoo leen fi jëlee moo tax nag consolidation boobu la gars yi la politisation de l' administration ba nga xamante ni le le le la fonctionnaire est obligé de prendre du recul loolu. injustice boobu la ñu war a réparer waat pour que le fonctionnaire mën na liggéeyal yow en tant que politique. Mm-hmm. yow mi am les grandes orientations yow mi am vision ñu mën a ànd ak yow accompagner la boo leen mekkee à l'écart rek du loolu nag mooy seen problème ñëpp dund nañ ko da nga gis léegi un militant de Pastef qui vient au niveau du ministère des finances ou qui vient à la à une direction nga toog accueillir ko recevoir ko mu ne ah bon suba dinaa la boole boole pour lan on est dans une administration on n'est pas dans une administration et c'était ça le problème dans ce pays tu es de l'APR tu viens on t'ouvre les portes parce que tu es de l'APR alors qu'on parle de d'État on parle de direction on parle on parle de service public waru am waru am waru am xaajaloo boo gisee ne kii da ko war recevoir parce que a besoin d'extrait tu le fais. oui. il a besoin de tel tu dois le faire parce que il faut voir le citoyen nga ko léegi culture citoyenneté boo nga am ne commencé woon nga ko sax après ngeen bàyyi ko c'est ça qui manque à ceux qui nous dirigent le militantisme et la citoyenneté une fois que tu accèdes au pouvoir comme tu l'as fait nga bàyyi ses responsabilités politiques dans ton parti autant aussi tu dois cultiver la citoyenneté je m'adresse à lui je parle avec je lui donne parce que c'est un citoyen il a mm-hmm. yooyu nag réew mi dañ ko soxlawaat mm-hmm. loolu moo ñu manqué mm-hmm. on à cent trente milliards de salaire loolu ñu am nañu jot taxaw fii di caaxaan c'est-à-dire maa ngi ñu ne il y cent vingt quatre milliards yu Sénégal di xaar d'accord c'est pour des secteurs bien définis mais est-ce que da ngeen fàttali ñu Sénégal rek sunu masse pour le mois c'est 140 milliards. c'est énorme donc toog fii di caaxaan di dugg si ay détails. c'est énorme. c'est énorme. tey bu pato taxawee nii fii nga xam ne mooy defar li nga moo tax Sénélec Sénélec bii saar moom lay togg moo tax Sénélec bii dund. mais bato bi bu taxawee xam nga ñaata ngay fay pour bato bi amul ay kii de ni ngay jëndee ceeb noonu ngay jëndee loolu. bu bato bi gaaree nii ou tu paies quatre-vingts milliards ou bi demaat. xam nga loolu du caaxaan donc ñun tey fi ñu toll ñoom ak li leen Sénégalais yi di yaxaare dafa bëri bëri waaye moom ci nii dañ leen di rappeler di leen may temps il faut les rappeler nag comme vous avez fait vous avez si bien fait président seen projet lii ngeen waxoon. lii ak lii ngeen waxoon ci lañ leen di xaar ci leen di xaar. mais nag xam nañ ne actuellement nii di leen ko rappeler mais xam nañ ne exactement présentement mënul leen ko def. te xale yi aussi ñu xam benn affaire ñi fi ne du ñoom ñooy taxaw naan leen yéen ñëpp dama leen utal liggéey ngeen nekk dans la fonction publique c'est impossible. Mm-hmm. il faut ñu xam ko. il faut qu'ils acceptent il faut qu'ils acceptent eux il faut que ñu accepte ñu bañ a taxaw ci emploi maanaam il faut qu'ils disent la la la non. réalité des choses. mais bien sûr tant que tu n'auras pas tant que tu xam nga man li may bañ sànq yaa ngi wax waxu mbay. mi. Euh, waaw l'emploi du fonction publique. waaw ci combien de. mais foofu laa jëm bëgg a jëm a la vérité. il faut qu'on leur dise la vérité. Mm. mooy li absorber le taux. d'emploi tant euh, manque d'emploi bi Sénégal c'est il faut avoir un secteur privé fort. Mmh. c'est important. absolument. tant qu'on n'a pas un secteur privé fort tu ne peux pas absorber aujourd'hui mmh. ce manque d'emploi des jeunes. Mmh. et que les jeunes aussi acceptent chacun à ce qui le concerne dans ton secteur. Mm-hmm. nga liggéey loolu. nga xam ne tey mën nga doon béykat doon milliardaire. Mm-hmm. te yéen ngeen sensibiliser lu vous les journalistes mm-hmm. sensibiliser dimbali di voir un agriculteur ou un pêcheur. qui est devenu milliardaire grâce à ce secteur. parce que secteur yooyu parfois dañ leen di col comme des secteurs yoo xamante ni dañ leen di yooyu oyofal dañ naan doo am xaalis doo am dara doo am alors que ñooñu dans les pays développés ñooñu ñoo yor milliards yi. mais Omar je te donne un exemple il y euh, euh, euh, s'appelle Rougui Bokoum. Mm-hmm. mu ngi ba Fouta. fa la dëkk quoi elle est native de Fouta. Mm-hmm. mais elle réside ici. Mm-hmm. kooku par exemple aujourd'hui elle a une GIE de plus de quatre cents femmes. dans le Fouta Kanel. Kanel oui. mais ñooñu ça fait cinq ans ñoom ñooy autofinancer seen bopp di dem ci ay transformation di def cuub jàppal bay mm. aujourd'hui xam nga ci lan lañ nekk. Mm. am nañu un hectare. Mm. boo xamante ni dañu bëgg a commencer dugg ci agriculture. Mm-hmm. boo xamante ni ci maraichage mm-hmm. dañuy def pataas di def soble di def di def maanaam maraîchage. ils sont ils sont là-bas xam nga lan la forage la ñu soxla par exemple am na yoo xamante ni daf fi nekk mooy li ma doon wax ba pare création d'emploi le levier est là inchallah juste accompagnement la gars yi soxla mhm. les petites et moyennes entreprises également le secteur mhm. organiser leen accompagner leen mhm. tout court ba pare favoriser li nga xamante ni mooy l'expertise locale surtout ça ba pare le sénégalais le sénégalais ju xam ni la comme léegi moom kenn dootu fi jàngal nit ñi luy patriote. Mm-hmm. am le patriotisme économique. Mm-hmm. Euh, euh, Moussa mu ngi fii c'est un couturier il est mieux que le gars qui m'a fait les costumes depuis la France. bien sûr seen marque yooyu ay Elzo ak je sais pas quoi. Mm-hmm. damay dem ci mussa mu defaral ma costume. mais bu boobaa aussi tamit matière première bi c'est très important donc ñu. dootuñu euh, importer jéggaani waaw tissu bi aussi bien sûr tissu bi dañ koy defaree fii te mën na nekk mm-hmm. c'est-à-dire problème bi gis nga euh, problème de l'emploi